ci at mi nemmeeku nañu yokkute bu am solo te jéggi dayu ci njëgi wurus. ah bii nii nit ñi dañ koy door dañ koy door resentir mais or bi mu yokkoo ak léegi xaw na yàgg tuuti quoi te nekk na loo nga xamante ni bon nekkul Sénégal la yokkoo sur le marché mondial. bon actuellement bon prix bu dee bijou yi am na ba 37 000 38 000 18 carats bu dee 21 carats day dem ba 39 000 40 000. yokkute boo xam ne jural na ay jafe-jafe yi ñi nga xam ne ñooy jaay wurus fi mu ne nii jaay seeni marchandise jafe na lool. am na impact bu mag nag am na impact bu mag parce que or bi bu fekkee dafay yokk nii dafay tax euh, ñun suñu clientèle bi dafay wàññeeku parce que tamit et puis dootoo ci mën a am benn bénéfice bi parce que. pratiquement li nga koy jëndee ak li nga koy jaay amul différence bu bari. waa ji ñaar fukki at mi ngi jaay wurus waaye nee na mosul a gis benn gramme ci wurus bi jóge Ségodo la. waa ñun bijoux yi ñuy jaay nii moom c'est des bijoux importés bijoux la. nekkul loo nga xamante ni ci or Sabadola bi lay jógee parce que or Sabadola bi moom ñu dañ koy dégg rek comme ñi ko sénégalais di déggee depuis année 92 94 ba léegi nii dañ koy dégg nii rek mosuñu ko gis. ci wuru si Sabodala doon na leen dimbali lool. waaw tey jii nii bu fekkonte ni tey Sénégal am na comptoir or boppam boo nga xamante ni or bi jógee Sabodala dafay dem bon su boobaa ñun dinañ ci mën a am benn benn avantage boo nga xamante ni dina tax même su or bi yokkoo tamit ñun au niveau local dinañ mën a am or boo xamante ni. bon du cher yenn cheraay yi quoi. gannaaw yokkute njëgi wurus xataayu marché bi sonal na lool ñi fiy jaay.